maaleykum salaam euh, ñëw naa ci consultation gratuite bi baax na def naa première consultation bu kii col bi waaye c'est normal baax na waaw normal na waaw baax na torop musuma ko def nag maa ngi koy soog a def ah léegi bu kii bi moo des bu sein bi moo def waaw maa ñaan yàlla tamit résultat yi baax. waaw maa ngi sant Antoinette suma mag bu baax la nag waaw moo ma fi indi. lan ngay wax ci artiste bi di Guigui aussi. si. Guigui artiste bi nga xamante ni moom moo yombalal mbir mi nga xamante ni. moom tamit ku baax la. waaw Antoinette daf ma dee wax ay mbiram. waaw xale bu baax la xale bu yaru la xale bu xam mag la. waxta lañu tur bi. man Khadijatou Koli. waaw Khadijatou Koli. ok merci. salaamaaleykum euh, maa ngi tudd Badiane Diabou Touré di présidente des Badiane de la commune de Grand Yoff waaw. Badiane ñu gis ni tey euh, da ngeen ko ànd ak artiste bi nga xam moom mooy Guigui def journée bi nga xamante ni mooy consultation gratuite euh, ci cancer du sein ak du col de su ñu bëggoon rek nga ñëwaat ci journée bi. waaw journée bi nag du journée tey rek parce que Guigui moom suñu doom la joo xam ne ci Grand Yoff la dëkk yàlla def mu dëkk fi nag yeewoo fi wuti bitim réew indi ko fii ci ñun. consultation bi chaque année que Dieu fait ji dina ci def kéem tolluwaay kàttanam ndax ku ne xam ne ne cancer du col de l'utérus mooy cancer bi nga xam ne mën na yàgg ci doom aadama pendant des années te doo xam exactement lu ca nekk day toog ba nga xam ne gimmi na ba bu gimmee nag loo yoroon mbaa lu say mbokk yoroon lu sa waa kër yoroon mu yem ca te mën naa am boo fajoo doo boo feeb euh, du la faj kon lii mu ñu defal mooy nga dépister mooy saytu sa yaram xool ba xam ndax am nga ñu pare ci loolu mu amaat foo xam ne boo ci gisee benn lésion ci tàng-tàng bi rek mën nañ la ci defal lu koy faagaagal loolu kenn amul fayam dañ koy ñaanal yàlla rek lépp lu mu mën rek yàlla na mënaat déwén lu ko ndax pàccoolu waa Grand benn yoon ndax cancer du sein cancer du col de l'utérus ñu ngi faagaagal doomu aadama te nit ñi amuñu moyen kon su doom doo amee doom mu dëkk fi wuti ji dara bi ti yëpp def ko bañ yàlla may ko ko mu chaque fois mu indi ko ci fii bi mu koy indi ne da ko indi fii nag jox ko nag suñu ICP bi nga xam ne na mooy madame Bakoy fa mu boole koog bàjjen yi nga xam ne ñoo ne Grand Yoff 2 yëpp ñu àndandoo ci bàjjen yëpp a ngi kon ñun loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ci sant suñu doom bi baax di ko ñaanal yàlla wér ak wér le xam ne ñoom bu amee milliard ñun ñi la koy jox waa mm-hmm. a vu que les femmes ont répondu massivement euh, mbooloo mi takku na loolu ci biti ñu bëggoon a xam rek nombre de consultation bi nga xam jot ngeen ko def ci suba ak léegi. ah naa bari nag parce que ñaari phase la ñun suñu côté yi rek suñu bos yi nga xam ne léegi def nañ ko fi. quinze fois def nañ fi cinq fois cinq fois quinze tey bokkul ak côté bale ñaar la ay façon ñaari pass la ñun rek te pareeguñu ndax nit ñi pratiquement dans la midi te ñoom dañ ne waa Maristop bi nga xam ne ñoom la ko àndal dañ ne tant nit ñi jeexuñ duñ ba waa kon nga xam ne ñoom ñi ngi dimbali ñoom ñëpp nam parce que nag bu wutee ay partenaires ñu indi ko Grand Yoff tey ji partenaires yooyu ne tam ñu ngi toog ak ñun du ñu bàyyi tant que ñun pareewuñu kon sant yàlla bu baax la waaye mais xam nañ ne ñor na nit ñi nit ñi xam nañ ne cancer day pour mu clair waaw kay moo tax nag ñoom ñëpp daw ñëw nañ macha allah te ñu ngi ci am satisfaction. waaye nag euh, résultat yi da ngeen koy génne tey tey tey wala day doon ah, beneen. su fekkee dañoo gis nag leneen ca nekkul am na fu ñu lay boole ñoom dina am foo xam ne fa lañ li yóbbu nga xam ne day am suivi que nag nit mënoo koo xool yàlla def mu am doomu jàngoro bi nga bàyyi ko ak loxoy neen déedéet ñoom suivi la foo xam ne dañuy dem yóbbu la ñu defaat yeneen suivi nga di la topp nag waaw parce que lii dara amuloo ci ragal ndax loo teel a gis rek yàlla mën na la cee dimbali waaw maladie moom fagaru rek loo teel a gis rek yàlla mën na la ci dimbali kon loolu mooy def loolu dañ lay am na suivi waaw loolu moo am mooy mooy chance bi ñu am ñun mooy am na suivi. jërëjëf euh, je pense que réponse leer na macha allah donc euh, kaddu yi nga xamante ni moom la yëkkati en tant que Badiane gox fi nga xamante ni moom mooy Grand Yoff dégg nga kaddu yi nga xam yëkkati ko ci consultation yi ñu def fii ànd kook artiste bi nga xamante ni mooy Guigui di doomu gox bi aussi loolu tamit am na solo Badiane. parce que tam Badiane yi ma àndal ñoo ma dooleel man samay Badiane ci district yëpp nag la ñu am. dépistage mais à chaque fois rek fenn fu nekk bàjjen ya fa nekk ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy gàddu loolu saytu ko dox ko kon ñu ngi gërëm bàjjen yëpp di leen ñaanal yàlla ñu ngi ciy dox nag maa macha allah mais yàlla dina leen ci jox xéewal amaguñ ci nag euh, li ñu war a am mooy bu werdee ñu fay ñu mais ñu ngi sant nag parce que euh, dooy faj nit la la koy faj xëy na fajoo ko jaar na ci yow rek sa loxo dem nga faj ko yàlla lam lam la cay fay moo ëpp euh, alal ja ñuy jox kon bu ñëwee dina neex ndax dañuy yokk suñu gafaka mais bu ñëwut bu yàlla fay rek doy na sëkk jërë ngeen def ñu ngi leen di con kontaane yéen tam waa Dakar waa waa Dakar instant ak univers info ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax chaque fois que dara am ngeen taxawee ci ñun fexe ba askan wi xam exactement ñun nan la ñu def kon ñu ngeen di ñaanal yàlla tam yàlla na ngeen dem ba toog ba am ay télévision à di ci def lu la ngeen bën ci daraje Seydou Diop jërë ngeen jëf kontaan ah xanaa sant yàlla rek ak di gërëm gii gi initiative bu baax la moom sax yàgg na koy def daf naan bi moo xawma cinquième année bi xawma édition bi waaw waaw waaw en tout cas daal su ñëpp defoon na moom musiciens yi bon ñu yàlla dimbali daal su ñëpp meloon na moom lii dina fi jóge ndaxte cancer bi nekk na loo xam ne daal feebar bu saay-saay la feebar bu saay-saay la danga koy yore da doo si xam dara ak yooyu suñu si mën a jàppale si suñu jigéen jigéen dafa sonn ñun dañoo sonn ñu jur doom yeeg yëpp ñu ñoo koy def waaw jur doom yeeg yëpp ñu ñoo koy def te mun na nekk si yow ñu naan maladie door la xamuñu si dara daal waaw mais nag kontaan nañ si dorop si ñëpp defoon na moom dina baax dina fi jóge daal franchement gii gi moom ñu ngi koy ñaanal moom di di ko gërëm yàlla yokk ko mu dem ba tas dëkk bi yëpp daal fu nekk mu fay dem edit muy def fu bare bari bari nag ku baax la daal lii mu def ñun ñu ngi jóge ba usine ñu nag yaayam ñoo daan ànd bi nekkee xale mais day ñëw woo yu ñëw def xam nga lii ne ndax xam nga ñun maire dañoo sàggan suñ doon toog di xaar defal ko suñu bopp duñ ko def waaw foog ñu ñuy profité kii ñu ñu daal di ñëw vrai franchement daal gii gi daal baax rek lañ ko gi di ka ñaana yàlla mu yokk sa kanam te di ñaan yàlla nag na ñëpp ñu mun mel ni moom ñu mel nañu def nii pour dimbali ñu jigéen ñi xam nga jigéen ñi ngi toog si kër du ñu dem du ñu dikk togg yàq ak yooyu rek la ñuy def ku ñu dimbali na génn na suñu kër jàppale ñu si lii dafay baax daal franchement moom ñu koy ñaanal di ko gërëm yàlla yokk ko mu gën ko mun ba mun a génn si village yeeg yooyu ndax ñoo ñu ko gën a soxla ñu si village ñooñu ko gën a soxla ñun opportunité yi ñu am sax ñoom amuñu ko waaw nañ yàlla daal ñu ngi ñaanal ko yàlla bu baax a baax a baax mais kontaan nañ si torop waaw merci beaucoup. yow jot nga consulter wala. waaw waaw consulter naa def naa pare naa yëpp waaw waaw. damay dem fële doon ñu liska ñu jox ñu benn don après ñu daal di dem dafi kii ba mammographie bi waaw kay bonne journée